comme li wax ko évaluer parce que waxuma la yow rek li def ñeneen ñi la sopp di bëgg di la jàppale mi di def xam nga loolu yëpp mënoo estimer ñaata la. génn nga Dakar Sénégal ci wut gàllaaj. génn Sénégal. man nag li may génn Sénégal bariwul de. ñëpp ñu ngi fi. ñi la ñaanal ñëpp xam nga dafa jaar rek di xam nga di féliciter gars yi parce que man dañuy dem jëli rek indi na ma defal nii defal nii defal nii wax dëgg yàlla surtout combat bi moom sama décision laa ci jëloon fu ñu dem ma leen hey. dem de dew ba fenn su ma entraîné damay noppal wallahi la azim bii bariwuloo loo jóg wuti non bii par rapport ak yeneen combat yi. bi ma fi jógee États-Unis su ma fi génnee ñaari yoon la xanaa te vite fait ay retour fenn foo dem defoo fa sax kii. ëmb li nga def fa jaar xam nga di leen rek staff bi xam nga mooy ñu yor. du ma ne sax ñoo yor musique làmb ñu dañu xamante ñu nekk suma xarit xam nga tey lu ma soxla ñoom ñu deg jukkuti ko xam nga ku ci mel ne ñoom Ibou Laye ñoom Serigne Ndiaye ñoom Baba ñoom Pabis ñoom Ibou Diop Mor Cissé xam nga Babacar Cissé ñoom jogay ku lim daal da ngay jub xam nga parce que depuis début ñoom la woon di sant di leen këram bu baax a baax yàlla mi am fay yàlla na yàlla fay ba yaakaar yi ñu am yëpp yàlla mottali ko bi mais xale ay xale ngeen écurie bi buñ ma xoolee Xaadim Gadiaga ci ci ñi ci mag la booy yi di yor ay galaaj ay booy papis ma male consort ibulaay gi ñii ñii yéen la mooy seen secret te ngeen doon ay xale non xam nga secret bi xool yu ànd la rek bëggante di def te yàlla tax xam nga parce que bu ñu nee écurie bi bari na ay mag ay père Ndiouga ci Pape Mbaye Alioune Dione xam nga tey staff yi lañ gis ci ginnaaw comme dafa bari ay ay ay ay pàcc daal xam nga ñi may àndal mm-hmm. ay xale lañ comme man xam nga and ah, di gor goru rek xam nga hmm. jappu ta yalla tax hmm. ba tay yalla yegal ñu fi xam nga di hmm. leen sante bu baaxa baax parce que limay wax senegal fi and fek borom daraje wala and fek borom tour wala borom al mu gëna metti parce que ko ci and rek ñu ni li tax ñu and nañu xam ne yalla moy boole ñu wara and dañuy and ala kulli hal ñu bayyi di ma laaj bi ma laaj ko eum ñaata nga def ci galaaj ci combat bi waaw prepare nañ ko rek ko ñu ko bayyi bon def nga ci 10 millions waaw def nañ ci xaaliss waaw def nañ ci xaaliss mat na 10 mën na diis waaw. ëpp na ko. waaw mën na diis waaw. ah mën na diis. da lay ruube. dina wax liñ xam naa du wax lépp mais def nga ci vingt wala trente. waaw def nañ ci xaalis làmb moom moo loolu ñu ànd quoi def nañ ci xaalis waaw. mais est-ce que c'est vrai ëmb mbër dina jël trente millions def ko ci gàllaaj. trente du tuuti trop. trente. tuuti. dafa tuuti. waaw li may wax kay. mu laaj ko Moodu wala nga laaj ko gars yi rek 30 moom wax dëgg yàlla waaw. mais tamit xam nga bu leen foog du mystique rek. parce que da voyage yi sam da ngay fay ay entraîneur da dund xam nga essence bi ngay def dafa métti daal. paramètres yi ñoo bari Sénégal dañuy fay dañuy foog ne saawaay xam nga bu ñu la joxee wala bu ñu tegee xaalis rek xaalis boobu da ko. fay nañ ko 100 millions. waaw ñu foog ne 100 yi da ko teg place. te affaire yi da ngay investir si sa bopp. xam nga yaa ngi waajal sa bopp. waajal sa bopp. sa avenir après le combat après làmb. waaw waajal sa bopp moom lu ci ëpp doolee mooy entraînement yi rek. xam non yaa ngi non non après waaye waaye après c'est ah, parce que <laughs> lu ñu naan futur moom mooy lépp. Hmm. ñëpp <laughs> futur la ñuy yow waxante la micro. yow it yaa ngi jëlal micro wala boobu du booy wax ah, wax saa li ñëpp di wax dañu bëgg wax ni Modou Lo moo lekk xaalis lamb ji yëpp parce que gars yi chaque mois bu ñu calculer lekk na fi trente millions et quelques par mois dama <laughs> set jëlal micro bi mun ma fonto xaalisu làmb wallaay dafa doy waar xam nee nañ xaalisu làmb jëm mi ngi ci yow dafa doy waar xaalisu làmb comme des fois ngelaw rek boo ko jëlee ba samp ko ah. lii war a dem fii lii war a dem fii lii war a dem fii wallaay la asim boo ci jëlee yow ñaata kër non loolu moom maa koy seede quoi la ñag mi ngi nii quoi moom xam na ci dara moom bu la joxe avance bi ah. mu ko ci un mois nga bay xam xaalis bi jaar ah loolu moom maa la ko wax c'est vrai sàmm nga koy def sàmm da ngay sàmm di joxe rek. te léegi li gën a garaaw mooy bàyyi seen doom yi dañoo jàng de dañuy lire journal dañuy xam lépp. waaw waaw soo ñëwee korom fay benn deux millions day day ñu fekk journal bi ci kër gi tege soo xoolee journal bi kay da xam ni. xaaral ma yokk enchère léegi.